diggante Baboy Ñoojoor ak Doudou Sané. Doudou Sané moo la féete càmmoñ Baboy Ñoojoor moo la féete ndijoor. Ndeysaan demi-finale individuelle. Ndeysaan Baboy Ñoojoor Doudou Sané ñoom ñaar combat bi fu muy mujj. Doudou Sané dem par catégorie wala finale équipe. ma ngay bëree demi-finale plus de cent kilos. saan ñoom ñaara ngi noonu ndaysaan Baboy ñoo joor ak Dudu Sané ndaysaan Baboy ñoo joor Dudu Sané ñoom ñaar gaa yi nee nañu combat bi combat soog la ci ñoom ñaar ndaysaan Baboy bu ñoo joor daw na jël Dudu saane bañ na Dudu macha allah doole ji tel na ko Doudou Sané Baboy Niodior combat bi du yomb Doudou Sané Baboy Niodior ndeysaan ñoom ñaare gi noonu waaye mbokk yi bu leen fàtte demi-finale bi ci topp day dox ci diggante Ablaye Ndiaye bu Robert Thiès ak Serigne Ndiaye 2 bu Faas dakaar Baboy Niodior dara amul Baboy Niodior Doudou Sané Baboy Niodior Doudou Sané Baboy Niodior Doudou Sané Baboy Niodior na ko daan na ko jéggi na ko doole doxul jàmm Doudou Sané dem na final équipe dem na final individuel moom Doudou Sané Baboy Niodior ak Doudou Sané mu ngi noonu Dakar ceinture bleue ndeysaan troisième place bi Liw Coor ndaysaan B dox ci diggante demi-finale Serigne Ndiaye 2 Fass Rouge Ablaye Ndiaye Joal Thiès Serigne Ndiaye daw ko Ablaye Ndiaye plaqué na ko daan na wala déet Serigne Ndiaye 2 daan na Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye 2 daan na Ablaye Ndiaye wala déet nee ko taxawal na le avertissement Serigne Ndiaye am na benn avertissement nee na ko taxawal arbitre bi sifle waat na Serigne Ndiaye 2 Ablaye Ndiaye jël amul Ablaye Ndiaye daw na plaqué na ko doole taxul jàmm Serigne Ndiaye wuraan na ko domba daan na ko daan na Ablaye daan na ko ndeysaan ñu waxtaan ñoom ñaar fair play ndeysaan fair play Liu daan na Sayer Ndama Serigne Ndiaye na final cey dem na final Serigne Ndiaye Ndeysaan Adama Kati Diop mi yàgg na ànd ak Robert Lamba Garaaw Serigne Ndiaye 2 tey katee indi moo laale